sunu borom yàlla xamal na doomu aadama yi nu ñu nar a mel ci malaaka yi malaaka yi nag jaaxle mu yàlla nan ngay bindi koo xam ne soo ko bindee da yàq ci kaw suuf lu ñu tudda yàq mooy dalay moy gaa yi mooy yàlla goo gis yàqali ci kaw suuf occidentaux yi di jàmbat sedd bi ñu am mosuñu ko am depuis un siècle inondation yi kasa nangam wallahi dañoo yokk bàkkaar yàlla yokk ay musibaam am déet loolu yàlla subhanahu wa taala wax wa ma asabakum min musibatin fa bi ma qaddamat fi ma kasabat aydikum wa yafu an kasir lu leen mën a dal xam leen ne mi ngi jógee ci seen mbir seen bakkan donte ne yàlla mooy bale lu bari borom bi subhanahu wa taala ci malaaka yi ni tuur deret naam dañuy tuur deret ndax yéen a ngi dégg li xew Syrie ndax yéen a ngi dégg li ngi dégg li xew ci adduna bi ay doomu adama ndax gaynde yi la ñuy dem di rey wala ñayi déedéet jàkkaarloog seen moroomi doomu aadama di leen rey rey yu ñaaw di tuur seen deret tuurin bu ñaaw mbokk yi nga xam ne ñooy <clears throat> waa dégg diine yi di filmer ñoom ñu ngi jaarale tafsir bi bés bu nekk gannaaw bañ ko defee en différé donte ne vidéo bi it nee nañ dañ koy jàllale par ajjuma ci biir site bi su ko defee képp koo xam ne bëgg na ko seetaan boo xoolee seen programme dana ko fekk foofu jubluwaay bi ñu ci jublu yépp mooy ñaan yàlla subhanahu wa taala la yeneen ci bi alei salaam doon wax jottali leen su doon suñu sago mboolem koo xam ne jaami yàlla nekk na fa ci kaw suuf kàddu yàlla gu koy leeral alquran yegg ci moom بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ok incha allah ñu ngi war a jël tey euh,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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم موخ أبي ينتم صلى الله عليه وسلم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات bégalal ma ñi nga xam ni dañoo gëm cay jëf jëf yu baax ya ann lahum jannat ne ñoom day dana leen ñeel àjjana yoo xam ni tajri min taxtiha al anhaar dana daw ca suufam xam ni moom mooy dex kullama ruziqu minha min samaratin risqa waxtu wuñ leen wërsëgalee ca àjjana jooje ci meññent mu nekk seen wërsëg qaalu haza allazi ruziqna min qablu ñu ne ñun dey lii lañu yàlla doon wërsëgal ca bu jiitu wa utuu bihi mutashaabiha doonte ñu jox nañ leen ca loola lu nuroo kese wa lahum fiha azwaajum mutahhara dana leen fa ñeel la nga xam ne mooy ay soxna ak i borom kër zawju arab da koy wax góor ak jigéen azwaaj ay ay jëkkër ak i jabar mutahara yoo xam ne dañ leen laabal wa hum fiha xaaliduun ca ñoom day dañ fay sax ba faw mi ngi noonu mbokk sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari mission yu màgg moo ko indi woon ci kaw suuf mooy bashiran wa nazira di bégale aw yoona ngi day ku ci jaar la lay xaar mooy aljanna lan mooy aljanna aljanna sunu yeneen bi alayhi salaam mu ni maa la aynun ra'at wala uznun samiat wa ma qatara ala qalbi bashar nit musul gis lu mel ni moom nit musul dégg lu mel ni moom soo demee ci yéeféer yi am na lu ñuy tuddee science fiction lu ne lañ koy xalaat ci bànneex kenn mënul xalaat ba xalaat lu lu dul lu mel ne aljanna béggalal jullit ñi ne àjjana boobu mi ngi leen di xaar àjjana boobu kon mbokk lan la jar sunu doom yi tey lan ngeen gis mooy ñi ngi traversé océan yi gannaaw bañ joxee lañ am ci xaalis lu bari nga gis ñi ngi dee ci géej ba tey rek am na déclaration yu ay mbokk yu nekk France di siiwal ci rajo yi naan ewaay eh ndaw ñi Europe ga ngeen xalaatoon démb melutul noonu bu leen rey seen bakkan waaye xale yi buñ jëlee seen xaalis affronté océan bi ñii lab ci ñii jote yegg bala ñoo dem seen genn wàllu yaram yàqu lu tax ñuy def loolu mooy xalaat ne su ma demee Espagne dugg aljanna déedéet mooy su ma demee Espagne dana am liggéey lan mooy liggéey ba mën na am mooy sang ay xaj wala xont ay mbaam xuux nga nekk ci biir sedd boobu mais lu tax mu jaral leen ko mooy mën naa cee dajale loo xam ne ëllëg bu ma dellusoo ci réew mi tekki li rekk tax ñuy dem mu jaral leen loolu lépp waaye yow mi bëgg a dem àjjana nag lan moo la jaral mbokk sahabatul kiram day bëggoon a dem aljanna moo leen jaraloon ñu génn seen dëkk joxe seen alal sacrifier seeni bakkan ànd ak yeneen ci yàlla bi jihaad mais est-ce que bala ngaa dem àjjana fokk nga def loolu déedéet mbokk jullit nit ki mën ngaa dem àjjana ci lu yomb bu la ko yàlla yombalee yàlla yàlla yombal ñu ko ca mooy yenent bi béggalal képp koo xam ne gëm na lan la ñu war a gëm mooy la yàlla ak ab yenentam indi mboolem lu yàlla ak yenentam indi jullit da ko war a gëm donte ne am na juróom benni ponk nga gëm ne yàlla kenn la gëm ne yàlla moomu am nay malaaka gëm ne wàcc na ay téere gëm ne yónni ne ay yonent gëm ne mooy dogal lu ko neex ci jaamam juróom-benneel bi nga gëm ne allaaxira am na lii mooy ponki ngëm gannaaw ba nga gëmit nga def lu baax lan mooy jëf ju baax mooy jëf joo xam ni ci yonent bi alayhi salaam lañ ko jële te bi koy def yàlla dong tax nga koy def gars yi mooy jëf ju baax ci diine jëf boo xam ne ci yonent yàlla nga ko jëlee te bi nga koy def yàlla rek a tax képp koo xam ne sa dund tënk nga ko ci lii te mooy al imaanu saxiix wala amalu saalix ah fabshir bégal ne àjjana moo lay xaar loolu mbokku tamit yàlla wax yonent bi na ci bégalaate da la way xam ne jataay suñ jotaay bi it yonent bi bégal nañu ci aljanna ci xadis bu gudd boo xam ne la koy tënk malaaka yi buñ gisee jataay yu mel nii dañ ñu wër leen borom bi dana leen laaj ay laaj ma ñoom lu tax ñu toog ma ñoom lu ñu bëgg ma ñoom lu ñu ragal su ko defee la nga xam ne mooy tënk xadis ba mooy yàlla ñoom day yow rek yaa tax ñu toog fii ngir bëgg la la ñuy ragal mooy tabbi sawara la ñuy sàkku mooy aljanna sunu borom ne malaaka yi seede leen ne man day jéggal naa leen danaa leen musal ci sawara dinaa leen tabbal ci ajjana ba yonent bi alayhi salaam sax wax ci lu gën a neexati ñu ne ko moom ne day am na koo xam ne moom lii indi ko woon ay ba muy jóge këram doon yéeneem dem toog ca jataayu diina ba waaye daal ñu fekk ñu toog rek mu toog ak ñoom suñu borom mu ne boole leen ko ci ndax ñooñu kuy toog ak ñoom di texe di yal nañ yàlla boole ci ajjanaam yi kawe ya bashiril lazina amanu borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni àjjana bu ñu fa demee la nga xam ne mooy dexi ndox yi dexi meew yi dexi sàngara yi dexi lem yi mi ngi daw ca suufam ay suufu seen jardin ya suufu seen immeuble ya pas nekk ci biir suufu suuf nga xam ngeen tey sax ñu ngi dund jamono joo xam ne gis gratte bu am cent étages waaye ndox mi yéeg ba fuufu fu la neex dugal ko fa loolu nag aljanna sunu borom mi ngi may dex yi di dugg ci waa aljanna num leen neexe léegi nag yàlla di leen wërsëgal ay meññeent te lu ci bëri suma borom day insister ci wax la nga xam ne mooy fruit yi ñu fay lekk ak ndox mañ fay naan parce que loolu ay dessert la képp koo xam ne jóge na ci benn euh, invitation di wax chir dessert yenam neexe mooy kon an nga am dit su ko defee kon sunu borom ne heure buñ ñeen wërsëgalee ay meññeent ah ñu dem ñu jox leen lañ xam lu ñu xamul ñu indi pomme jeeg banaana ci malaaka yi servir leen ñu lekk ci doonte ne du bokk yañ xamoon ci àdduna léegi bu ñu xëyee suba malaaka yi lañ indi yeneen fruit dana ca am yu mel ne yi ñu indi woon démb ñu ne ah ñun de lii la joxoon démb suñu borom mu ne déedéet boo téyee boo xampee xam na pom bii day bokkul ak ba nga xampoon démb banaana bii bokkul ba nga lekkoon démb lay ñëw bërki démb lay ñëw suba du bokk ak li ñëw démb li ñëw gannaaw suba du bokk ak li ñëw suba daa iman daa iman daa iman toujours ñi ngi lekk fruit yu bokkul ak yooyu ñu lekkoon demal xool jaay jaaykatu mango yi nga laaj leen ñaata façon mango ñoo am gis ngeen te loolu ci àdduna rek la sunu borom subhanahu wa taala ni danaa leen boole ak la nga xam ne mooy seen jëkkër ya danaa leen boole ak la nga xam ne mooy seen soxna ya laabal leen ay zahiran wa batina aljanna mbokk ko fay dugg déchet dootoo génne ci yow dootoo ñandu dootoo tafli dootoo saw dootoo kabini lu la neex ngay lekk parfum lay génn ci yow ñaq bu mel ni misk lay génn ci yow loolu mooy seen jëmm yi feebar jeex na màgget jeex na coono jeex na abadan waaye itamit baatinan seen xol ya yàlla da koy laabal ñoom ñépp ñu bokk benn xol seen jukko nekk benn ixwaanan ala sururin mutaqabilin ñu nekk ay doomi ndey góor ak jigéen ñéppay bëggante ku ne na nga bëgge sa bopp ngay bëgge sa moroom te loolu mbokk moo dàq aljanna gis ngeen loolu moo dàq lekk ga ak naan nga borom boobu subhanahu wa taala nag ni gannaaw ba dañu fay sax ba faw ay àjjana ngi noonu mbokk mooy li nga xamee ni nii boo fi xisee bu dugg jeex na lii nag mbokk moo jar lu nekk te wax nañu leen ni waxuñu leen jaay leen seen kër yi waxuñu leen rey leen seen bopp waxuñu leen génn leen waaye fexe leen sellal seen ngëm fexe leen sellal seeni jëf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 حقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون borom mu ne inna allaha laa yastaxyi borom bi yàlla day du am kersa an yadriba masalan ma ci dóor misaal bu ko neex baudatan fa ma fawqaha na doon yoola walla lu gën a kawe yoo am ñu koy firee lu gën a kawe yoo ci tuuti fa amma allazina amanu fa yaalamuuna annahu alxaq min rabbihim bu dee ne ñi nga xam ne dañoo gëm daañu xam ne lii day dëgg la gu bawoo ci seen boroom wa ama allazina kafaru bu dee ne nag yéeféree ñoom fa yaquluuna maza araada allahu bi hada masala da ngay dégg ñu ne moom moom lan la yàlla bëgg ci lii ci ab misaal yudillu bihi kasira dana ci réeral ñu bari wa yahdi bihi kasira dana ci jubal ñu bari wa ma yudillu bihi illa alfasiqin waaye du ci réeral lu dul ña nga xamee ni nii dañoo génn ak topp allazina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaqi ña nga xam ne dañuy firi koll rek yàlla ga gannaaw bañ ko fasee wa yaqta'uuna ma amara allahu bihi an yusal di dagg la nga xam ne yàlla moo santaane ñu jokk ko wa yufsiduuna fi l nekk di yàq ci kaw suuf ulaika humul xaasiruun ñooñu day ñooy ña perte mi ngi noonu mbokk suñu boroom téere bu tedd bi da cee tudd bàyyi mu yu bari muy wone les écologistes ñuy toppatoo wàllu jaww jeeg yooyu su doon te ni nii tubaab bi tuqul seen xel ka nga xam ne moo nekkoon seen royukaay mooy sunu yonent muhammad alayhi salaam mi indi al nga xam ni mooy benn téere boo xam ni li ci yàlla tudd ci bàyyi ma bari na sunu borom tudd na ñay ya sunu borom tudd na giléem ya sunu borom tudd na nag ya sunu borom tudd na xaj ya tudd na mbaam ya tudd na jaan ya tudd na jargoñ ya tudd na lu nekk yàlla tudd na ko ci téereem bu tedd bi léegi nag yéefiri ñoom lu ñu doon wax waaw nga defee ne muhammad lii muy wax di askane ci yàlla ku toll na yàlla dana wax di ci dugal dugal ay weñ ku toll na yàlla dana wax di ci dugal jargoñ sunu borom yàlla ne leen yàlla day du ruus di dóor misaal ci la nga xam ne mooy yoo ak loo xam ne moo gën a féete kaw yoo mbokk lañuy jëkk a wax sunu borom yàlla du ruus ci def misaal boobu kon yàlla am na lu mu ruus na am mbokk julit sunu borom yàlla moo melowoo na ko soob bokk na ci melokaan yooyu sunu yonente alayhi salaam mu ne inna allaha xayiyun karimun yastaxyi min abdihi ida rafaa ilayhi yadayhi an yarudduhuma sifra yàlla dafay am kersa yàlla dafa tedd rus na moos ab jaamam bàyyi ñëpp yëkkatey loxoom jëm ci moom ba pare mu neenal ko tegu ca dara kon heure boo yëkkatee sa loxo ñaan waatal na yàlla may na la mën na am kay lam lay may lu dul dëppoog la nga bëggoon waaye fokk yàlla may la te bu la mayul la nga bëggoon dana la may la gën la nga bëggoon gis ngeen kon yàlla du rus nag ci dóor misaal ci yow mbokk loolu bi ko yéefari arab yi di reetaan tey laajal xale bi gën a néew xale yi nekk sëmm de laaj leen waaw loolu ñuy wax paludisme muy sibbiru lan moo koy waral gaa yi lu koy waral mooy yoo moo koy waral parce que paludisme muy sibiru boobu soo tëddoon ak nit benn lal ngeen bokk benn mbaaj ñaqam yépp nga fanaan ci du tax mu wàllu la ko bala la ko wàll il faut yow muy ñëw matt ko bu duggee ci biiru yoo bi ci la virus bi développé bu mattaatee keneen ca la koy jox loolu dana rey au moins un million de personnes par an ci àdduna bi un million de personne suñ dajoo la woon mboolem li gaynde yi jaan yi bal ak doomu aadama yi li ñuy rey lépp matul asaka loolu am déet gis ngeen suñu borom ni rusul dóor misaal ci yow yow moom nga xam ni bokk na suñu magu gàmmkat bi fi jaaroon mu ne yow dañ naan dafa rëy na ñay ñay mooy li gën a rëy li ñu xam ci kaw suuf daa tuuti na yow et pourtant lu ñay am yoo am na ko ñay dafa am trompe muy ñax bi yoo am na ñox boobu nga xam ne su ko tegee sa der bi comme vilebrequin lay doon su ko actionné dana dem ba sa biir neer ya manque deret di naan ba man di am déet et pourtant même deru giléem li muy dëgër dëgër yoo da ciy takk bëtt affaire bi naan ba man di ca boo ko laalee comme coton suñu borom yàlla kon gis ngeen mi ngi mi ngi noonu am na ñox am na ay tànk am na li ñay lépp am ba pare nag am ay laaf yoo xam ne mën na naaw tim ñay ay li nekk ci yoo amul ci ñay kon yàlla rusulu dóor misaal ci yoo loolu moo tax ba sunu borom la mu waxoon ca weñ wa mooy ni ngeen di woo ca du yàlla yépp mënuñu bind benn weñ wala ijtama'una ca suratul hajj kon sunu borom mi ngi noonu am ñu firi fa ma fawqaha ay lu ko gën a kawe wala lu ko gën a tuuti ca mooy na doon ngootor yaag fel yaag yu demee noonu lépp amu ci ludul ne sunu borom yàlla bu ko tegee mboolem nit ak jinne daje dajee mënuñu indi lu mel noonu am déet sunu borom nag mu ne moo tax ba ñi nga xamee ni nii ah, dañoo gën dañ naan lii day dëgg la ko bawoo ci suñu borom na am sunu borom day rusula tudd misaal yoo ak weñ lii dëgg la ko bawoo sunu borom amaa yéeféer yi lu ñuy wax waaye yow nga defe ne Muhammad bi li muy wax dëgg la ku toll na yàlla dana wax ju tudd yoo ak weñ sunu borom nag ne misaal la yoo xam ne dana ci réeral ñu bari dana ci jubal ñu bari waaye kan la ciy réeral mooy alfasiqin loolu it muy wane ne mbokk yàlla mooy jubal ku mu neex yàlla muy réeral ku mu neex waaye yàlla ku mu réeral dafa fekk ne yaa sabab lu réer googu am déet yow yaay fasiq falamma zaagu azaaga allahu qulubahum mi ngi noonu surata saf sunu borom yàlla mu ne ban demee ba jéngal yàlla jéngal seen xol kon nag faasiq yi nga xam ne sunu borom ne ne kóllëre dañ fa sant woon ak man te war maa jaamu bañ maa bokkaaleeg dara firi nañ ko la nga xam ne santoon naa ñu jokk ko te mooy jokk mbokk ga jokk sama bi yonent jokk miskin yi loolu lépp dagg nañ ko sunu borom yàlla mun ne ñii ñooy ña nga xam ne ñoo yeyoo ma réeral leen te ñii rek ñooy ñi perte àdduna ak àllaaxira yàlla na yàlla musal ñu ci loolu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 waaw kayfa takfuruun kayfa takfuruuna billah ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaatan fa ahyaakum te da ngeen a deewoon yàlla dekkal leen summa yumiitukum summa yuxyikum gannaaw ba dana leen rayaat leen summa ilayhi turjaun gannaaw ba ci moom ngeen di dellu huwa alladi xalaqa lakum ma fi l nekk ci suuf mboole seen summa stawa ila sama gannaaw ba mu jublu ci asamaan ya fa sawwaahunna sab'a samawat mu yemele leen def leen juróom-ñaari asamaan wa huwa bi kulli shay'in alim bépp mbir sunu borom yàlla mooy ki ka xam mbokk yéefar yaa ngoogu weddi seen borom yàq ci kaw suuf te kéeféer ak bakkaar musiba bu am ci kaw suuf xam leen ne loolu moo ko indi ba tax suñu borom mu ne yufsiduna fil ard mu ne nag yéen doomu aadama yi naka ngeen di weddee te yow bi ngay ñëw ci adduna aji dee nga ba ko doomu aadama buy sosu ci biiru yaayam aji dee la baba mi am kat moo dafay nekk rek benn lumb bu yàlla defar boo xam ne bu ko yaayam génne woon moog yàpp wu nëpp mooy yem dañ koy jël rek suul ko fu ñu ko mën a suul ndax ruux amagu ci am amma bu deman ba am quatre mois et plus ba yàlla def ci ak ruux su boobaa dangay gis ni lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne même bu dee bi muy judd indiwul bakkan mën nañ koo sang sangu ko yóbbu ko ci armée de jullit ña ndax ruux mi ngi ci biir kon doomu aadama dee lay commencé ci biiru yaayam gannaaw ba yàlla dekkal ko su ñëwee ci kaw suuf yàlla rey ko gannaaw ba dekkalaat ko yowmal qiyaama daa di koy indi dajale ko fa nga xam ne fa la ko war a attee loolu mbokk da ngay gis ne moom la sunu borom yàlla subhanahu wa taala wax ci loolu mu ngi wane ne kon ku gëm dëkk gu jëkk gi ay yow toquman yi nga woon sa biiru yaay yàlla subhanahu wa defar la ba taxawal la tey nii yaa ngi wax ak a jëf nga jàpp ne su ma delluwaat ci biir bàmmeel du tuma génnaat loolee gàtt xel munta paase loolu borom boobu nag subhanahu wa taala ni moo ñu bindal mboolem li nekk ci kaw suuf doomu aadama lépp lu nekk ci kaw suuf yow yaa tax yàlla bind ko am na yu ñoo xam ni sunu maam yi xamuñu ko woon ñun xam nañu ko sunu maam yi xamuñu woon luy pétrole tey jii doomu aadama yi buñ toogoon bloqué teen pétrole yi pandaan deux mois àdduna bi yëpp taxaw su maam yi xamuñoon luy gaz tey ñu ngi koy jëfandikoo am na yeneen yeneen yu bari yoo xam ne mën na am génération yi ci kanam ñoo koy xam yàlla defaral ñu lépp looloo tax lépp loo gis ci kaw suuf daggal na ñeel doomu aadama lu dul loo xam ne dalil dafa ñëw génne ko ci loo gis dagal na nga lekk ko dagal na nga jëfandikoo ko lu dul loo xam ne nii dalil daa jógee ci yonent yàlla bi ne lii moom xaram na ca lañ koy doog a bàyyi mais lu dalil amul ci ne xaraam na bu la neexee jëfe ko loolu mooy contraire u jëfe diine diine dañu naan la amoo droit jëfe ci dara lu dul lu la dalil jëfandikoo loo amma yi nga xam ne dafa dagan ak lu xaraam amoo droit moom di ci di dara lu dul loo xam ne nii tegtal dafa ñëw wan le ne kat lii moom dafa xaraam loolu muy lu jëkk ñaareel bi mbokk yàlla def na doomu aadama li nekk ci kaw suuf dàq koo daw ëpp ko doole yii ña ngay naaw waaye lépp yàlla mun a doomu aadama yaa moom da ngay dem tey ci li ñuy tuddee <clears throat> ay zoo fi ñuy ci parc yi gis doomu aadama parqué ay gaynde am déet dugal ci ay cage nga dem Inde gis ay doomu aadama yu am ay géttu ñay bu ñuy dem tool war ci seen ñay buñ paree jàpp leen ak seeni seen yeew ay xale yu ndaw ñoo koy def nga gis benn naar bu ndaw jiital fanweeri giléem waaw léegi yow doomu aadama yàlla teral la teraange bi yow nag lan mooy sa waru gar mbokk yàlla dalaa bindoon pour nga jaamu ko am déet ñu bari ci doomu aadama yi ne dañoo wëlbati carte gi au lieu ñu jëfandikoo lu nekk ci kaw suuf pour jaamu seen boroom dañoo bàyyi seen boroom ngiree jaamu la nga xam ne moo nekk ci kaw suuf képp koo xam ne alal ngay jaamu képp koo xam ne ak siiw ngay jaamu képp koo xam ne ak pal ngay jaamu nga jënd ko jaamu yàlla mooy yow da ngaa wëlbatiku moo tax suñu boroom day wax aay yu bari ana yufakoon naka lañ dëppoo gis ngeen kon mbokk doomu aadama mi ngi noonu lépp loo nekk da nga ko war a jëfandikoo ngir jaamu la nga xam ne mooy sa borom sa borom boobu nga xam ni moo jublu ci asamaan yi su mastawa ila sama moo jublu ci asamaan yi bokkul ak fa muy wax su mastawa alal arsh foofu moom dafa kawe kaw arsh waaye fii jublu lañ ko wax ay qasada ila sama daal di koy tëral juróom-ñaari asamaan yoo xam ne même bu dee mënuñu ko expliquer xam leen ne juróom-ñaari asamaan la ci asamaan bi fii te suuf moom la suñu borom ne moom la taaral ci ay biddiw borom boobu nag mun a mooy ki xam lépp mooy ki xam lépp bokk na yow la nga cay jëfandikoo doomu aadama mooy foo mën a nekk loo mën a nekk lu nekk sa biir xol yàlla jalla wa ala xam ne lépp bàyyi gi ngay bàyyi loolu xel loolu la ñuy tudd mooy ihsaan garab bi gën a kayu ci diini yal na yàlla jalla waala defal ñu ko وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك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 قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سنبرون جل وعلا مني yow yonent bi wa is qaala rabbuka lil malaa'ika fàttalikul ba sa borom di wax malaaka ya inni jaa'ilun fil ardi xalifa man day damay def ci suuf aji kuutaay qaalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha ñu ne ko moo tax yàlla da nga fay def koo xam ne bu demee day yàq foofu wa yasfiku dimaa di tuur deret ya wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak te ñun ñi ngi lay sabbal ànd ak di la sant te it ñi ngi lay sellal di la ñeelal di la ñeel qaala inni aalamu ma la taalamuun mu ne man maa xam loo xam ne xamu leen ko wa allama aadama al asmaa kullaha noonu la sunu borom jàngale aadama tur ya mboole seen summa aradahum ala al malaika gannaaw ba mu gaaral tur ya ca malaaka ya fa qaala ambiuuni bi asmaai haula in kuntum saadiqin mu ne xabaare leen ma ci tur yii yéey nga xam ne mën a leen won su dee nekk ngeen aju doggu qaalu subhanak laa ilma lana illa ma allamtana ñu ne ko sell ñeel na la ñun dey xamuñu lu dul la ñu xamal innaka anta al alimul hakim yow dong yaay aji xam lépp yaay aji xereñe ji qaala yaa aadamu ambihum bi asmaihim sunu borom ne aadama xabaare leen ci tur yi falamma ambaahum bi asmaihim ba mu leen xabaaree ci tur ya qaala alam aqul lakum inni alamu gayba alsamawati wal ard suñu borom ne ndax waxuma leen woon ne xam naa kumpëg asamaan yi ak suuf wa alamu ma tubduun wa ma taktumuun wa ma kuntum taktumuun te it xam naa lépp lu ngeen feeñal ak lépp lu ngeen nekkoon di ko nëbb mbokk suñu borom mi ngi ñuy delloo ca sunu cosaan sunu cosaan bokk na loo xam yi ni nii ba sunu jamono yi tey ah, ak a neexoon ku mën a jottali ñi nga xam ne ñooy autorité yi président de la république ak ku nekk ci suufam xam leen ne ba suñ jamono yi tey soo delloo suñu école yi lañuy jàngal suñu xale yi nekk ci sixième mooy doomu aadama ci golo loo jógee ndax xam ngeen looloo waay mu ngi noonu doomu aadama ci golo la jógee mi ngi noonu le hasard la nécessité moo fi indi doomu aadama mooy par hasard ak it pour bëgg a survivre ca la mbir yi jaar continuer ay wallax njaan ay kurti kurti ba ci golo lañ jóge doog a nekk ci nit donte ne ñoom dong ñooy ay golo gis ngeen su ko defee kon mbokk lay doomu aadama war a gëm ci alhamdulillah yahud yaag nasaraan yaag ñépp ñi am diini loolu lañu gëm mooy sunu borom daa bindoon suuf def fi li fi war a nekk yépp golo yeeg gaynde yeeg li fi war a am yépp am na mu daal di fii indi ay mbindaa fonam bokkoon na ci jinni yi nga xam ne ñoo jiitu gannaaw loolu mu ne sunu boroom sunu boroom mu ne malaaka yi damay bind nag ci suuf def fa xalifa xalifa googu am na ay firin mooy koo xam ne moo koy yilif dafa diriger xalifa yi dana nekk ku wuutu keneen koo xam ne dafa nekkoon donte ne lu ëpp ci boroom xam-xam li mu ko firee mooy ñuy wuutante ay génération yoo xam ne bu dem beneen génération remplacé ko loolu bi nga xamee ne am na sunu borom yàlla xamal na doomu aadama yi nu ñu nar a mel ci malaaka yi malaaka yi nag jaaxle mu yàlla nan ngay bindi koo xam ni soo ko bindee day yàq ci kaw suuf lu ñu tudde yàq mooy dalay moy gaa yi mooy yàlla goo gis yàqale ci kaw suuf occidentaux yi di jàmbat sedd bi ñu am mosuñu ko am depuis un siècle inondation yi kaza nangam wallahi dañoo yokk bàkkaar yàlla yokk ay musibaam am déet loolu yàlla subhanahu wa taala wax ma asabakum min musibatin fa bi ma qaddamat fi ma kasabat aydikum wa yafu an kasir lu leen mën a dal xam leen ne mi ngi jógee ci seen mbir seen bakkan donte ne yàlla mooy bale lu bari borom bi subhanahu wa taala teg dañuy tuur deret naam dañuy tur deret ndax yéen a ngi dégg li xew Syrie ndax yéen a ngi dégg li xew Congo ndax yéen a ngi dégg li xew ci àdduna bi ay doomu aadama ndax gaynde yi la ñuy dem di rey wala ñay yi déedéet jàkkaarloog seen moroomi doomu aadama di leen rey rey yu ñaaw di tuur seen deret tuurin bu ñaaw malaaka yi nag jàpp ne yàlla te ñu fa yóbbu ñun ñi nga xam ne ñi ngi dëkk di la sabbaal subhanallah ñi ngi dëkk di la sant di la sant waaye ñi ngi dëkkit di la laabal di la sellal taqdis mi ngi noonu ba nga xam ne lenn lu manqué ci yow xalaatuñ ko di la ko taqal teg ñu fa yóbbu suñu borom ne leen xam naa lu ngeen xamul ndax ñoom li ñu gis rek mooy côté négatif doomu aadama waaye suñ borom xam ne ne doomu aadama yooy dana ci am ñoo xam ne ñooy tiim malaaka yi te yonent yi ak siddiqin ak shuhadaa yi ak saalihin ndax malaaka yàlla da koo bind mu munul mooy yàlla day jaamu yàlla rek am naa yàlla dina bind doomu aadama boo xam ne mën na mooy yàlla waaye dañuy téye seen bopp jaamu yàlla comme ni malaaka yi di jaamoo te loolu mbokk moo ëpp valeur boo demee ci tubaab bi dañ naan un n'a de sens que si on a la possibilité de dire non waa ji balaa nga sa wéy di am solo nga mën gàntal mais koo xam ne mënoo gàntal kooku da ngay gis ne sa nangu mën nañ ko bañ mën nañ ko sikki sàkka kon doomu aadama bi nga xamee ne nii daa góor góorgóorlu xeexat bakkanam tënk ko ci li neex yàlla suñu borom mu ne ulaayka hum xayrul bariya ñii ñooy ñi gën ci mbindaa fan yi xam naa lu ngeen xamul première démonstration sunu boroom bi muy bindee aadama mu may aadama xam-xam bu malaaka yi xamul xamal ko ay mbir boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bari doonte ne bokk na lu gën mooy la aadama war a jëfandikoo ci kaw suuf yépp mu ne malaaka yi lii lu muy firi malaaka yi xamuñu ci dara adama yàlla xamul ko lépp malaaka yi ne yàlla ñun xamuñu lu dul loo xamal te loolu mbokk teggin la bu bépp doomu aadama war a jëfandikoo amul kuy xam lu dul lu ko yàlla xamoon am déet gaa yi maître bi dañ koy jox fanweeri élève yoo xam ne ñëpp ñoo bokk benn âge sept mu jàngal leen pendant un an am ñu ca xam lu bari am ñoo xam ne mënul dugal benn xarfu seen bopp am déet kon yàlla mooy jàngale laa ilma lana illa ma allamtana xamuñu lu dul loo ñu xamal yow yaay ki xam lépp yaay ki xereñe lii nag bi mu amee sunu boroom ne kon aadama xabaare leen la nga xame ni nii moom la ñu réere aadama nekk professeur ci malaaka yi ñoom jibril ak ñoom mikaayil ak ñépp aadama taxaw di expliquer lii mooy nangam lii mooy nangam lii mooy nangam lii mooy màngam malaaka yi commencé ah ah kii dee lu yàlla doon wax moom am na ndax moo ko xam-xam ca la yàlla di yëkkati ay daraja sunu borom subhanahu wa taala nag ni waxoon naa leen ni xam naa kumpak asamaan ak suuf xam naa li ngeen feeñal te xam naa li ngeen nëbb ñu ne ma ngi ci jublu woon saay-saay ba leen raxoon di iblis ah mi nga xam ne ab yéefér la woon suñu borom mu ne xam naa la ngeen nëbb ci seen biir te loolu dana feeñ ci kanam mi ngi noonu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 التواب الرحيم سن بروم جل وعلا مني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم fàttalikul bi ñuy wax malaaka yi sujuud leen ñel aadama fa sajadu illa iblis ñoom ñépp ñu sujuud bam des iblis aba wastakbara lànk na rëy rëylu na wa kaane min alkaafiriin bokk ci yéeféer ya wa qul naa yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljanna ñu ne ay aadama demal dëkkee yaag sa soxna si ca àjjana ja wa kulaa minha ragadan xaysu shituma lekk leen ci àjjana ji ca nam yaatoo ca fu mu leen fa neexe wala taqraba haadihi shajara waaye garab gii nag moom bu leen ko jege de fa takuuna min alzalimin su ngeen ko defee da ngeen bokk ci tooñkat yi fa azallahuma cheytaanu anha noon nga leen a tarxiisala cheytaane ca foofe ay soril leen ajjana jooje fa axrajuhuma mimma kaana fihi génn leen ca la nga xam ne nekkoon nañ ca wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu noonu la ñu waxee ne wadd leen lenn ci yéen nekk noonu ñu ca des ay aadama ak hawa contre cheytaane wa lakum fi l ardi mustaqarrun wa mataun ila xiin dana leen ñeel ci suuf ab saxuwaay ak lu ngeen di bànneexoo ba ci jëmmi jamono fa talaqa aadamu min rabbihi kalimatin waaye noonu la jote aadama bawoo ca ay kaddu fa taaba alayhi sun borom nangul ko tuubam huwa tawaabu rahim moom ki sax di nangu tuubu jaami mooy ki am seen yërmaande mi ngi noonu mbokk sunu borom wax na malaaka yi gannaaw bi leen professeur aadama jàngale su aadama malaaka yi sujuutal aadama sujuutal aadama benn waay ñëw na ci man na ma waaw waaye yéen dégg naa da di bañ nit di sujuutal nit ma ne ko bañuñu ko de diine moo ko bañ islam moo ko tere mu ne ma lu tax ngeen di jàng ci alxuraan yàlla wax ne malaaka yi ak ni ñuy teddee sujuutal leen aadama mën ne ko waaw yàlla moo joxoon malaaka yi ndigal ñu sujjuutal aadama ñun nag yàlla ñu jox ndigal bu ñu sujjuutal kenn ku dul yàlla loolu mooy li am da ngay gis Muaz ibn Jabal jóge na yeman ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di gis ak sujjuut mu ne ko Muaz lii lan la mu ne ko damaa gis Yaman di ñuy sujjuutal seen labbe yi te xam naa ko ñuy sujjuutal yaa ci gën a yey mu ne ko mukk bu ko defeti su doon damay digal kenn mu sujuutal kenn dama naan jigéen foo gis sa jëkkër sujuutal ko waaye ñun julit du ñu sujuutal ko dul yàlla keroog ñoom jaafar bañ demee ci Najashi ci Éthiopie mu nekkoon empire bu rëy képp ko daan ñëw ci biir palais royal bi boo jàkkaarloog buur bi da war a sujuut bi ñu ñëwee taxaw garde yi ñu leen sujuut leen ñu ne ñun du ñu sujuutal ku dul yàlla gis ngeen wala mooy mbir bi su ko defee mbokk du ne tegtal boo gis alquran dañ naan dañ koy jëfee ñun ñëpp jàng nañu Ibrahima alayhi salaam yàlla na ko dama rendi sa doom ji waaw Ibrahima di dogoon na ko rendi ko lu waral loolu parce que ndigal la am déet waaw léegi ndax ñun kenn ci ñun dana ah yàlla waxoon ne Ibrahima na rendi doomam kon sama doom ji daal lakkal na ma xaaral ma rendi ko rek noppalu benn yoon abadan doo ko def lu tax moo dina loolu mbokk suñu borom tëralu ko ci ñun kon ñu baamu waat mbokk jullit jullit du sujuutal ku dul yàlla jalla waala loolu ñu bàyyi ci xel bu baax islam lam ñu jàngaloon ci nuyoo mooy ñu joxante suñuy loxo ndeyjoor ak ndeyjoor ngeen tudd yàlla sant yàlla yàlla baal leen seen bakkaar la indi woon fóon loxo bi mooy bu jëkk machine xewul woon téere yi ngeen gis yëpp ay borom xam-xam ñoo ko daan bind seeni loxo bind kaamil bi bind xadiis yi loxo bu tedd boobu lañ daan def kuñ basaan dajeeg borom xam-xam yu mel noonu fóon ko ngir màggal xam-xam waaye du woon màggal direct kii saar bàyyam saar la sant rek ay ca kon fu ñu ko gis nañ ko defal loolu abadan borom xam-xam yi daan bind xam-xam lañu daan fóon seen loxo ngir màggal ko mais pas jël sa jéede sujuut loolu nañu xam ne islaam day dafa tere loolu am naa malaaka yi ndigal lañ jot sujuutal leen aadama ñu sujuut ñoom ñëpp iblis moom frenkulaayu te iblis du woon malaaka suñu borom mu ne kaani minal jinn fa fasaqa an amri rabbi waaye bokk na nu ko yàlla nattoo woon da daan yéeg kaw asamaan a ak malaaka yi yéen a ngi ko jàng suratu jinn inna kunna naquudu minha maqaida li sama léegi nag suñu borom na ko waaw iblis lu tax su juutoo xëy na mënoon naa lay na ah, yàlla damaa foogoon malaaka yi rek nga wax waaye iblis daf na yàlla kii duma ko sujuutal am na juróom-ñaari saar ci alquran suñu borom dañu nekk li histoire bi la koy mooy yàlla kii maa ko gën ndax moom ca ban nga ko binde ca man ci sawara ma ko binde bu dee sujut am moom moom war a sujuta ndax man maa ko gën ca mbokk malaaka yi ci leer la leen yàlla binde loolu it muy wane képp kuy fëgg dënnam ca fa mu bokk mooy njaaw ga piir la tooroo piir laa nangam piir la yaag seytaane yéen a bokk xalaat doomu aadama yi gënantiwuñ foofu loolu yi suñu borom mu ne bañ na rëy rëylu na nekk na ci yéeféer yi loola tax bokk na ci tegtal yi borom xamxam xam yi dolli ca tegtal yu bari yi wane ne ki julliwul yéeféer la mooy aaya bi sunu borom mu ne aba wastakbara wa kaana minal kaafiriin benn sujud la iblis bañ sunu borom ne yéeféer la waaye ki yàlla sant mu war a julli juróomi yoon mu lànk yépp nag kooku lu mu doon moom lu jara laaj la su ko sunu borom mu ne kaana minal kaafiriin léegi nag sunu borom yàlla ci kattanam daal di jël ci faaru aadama daal ci bind xawa moom mi bindoon aadama ci ban ñu nekk benn couple mu ñu dem leen dugg aljanna num leen neexe lekke leen ko num leen neexe ca it fu mu leen neexe lekke leen ko leen rek laa leen sant mooy garab gi bu leen ko jege yàlla waxul bu leen ci lekk de dane bu leen ko jege loolu it mbokk moo tax atte yu bari njaaloo ngi ni suñ borom waxul benn yoon bu leen njaaloo abadan amul ci alquran bu leen njaaloo amul xanaa kay nee na du ñu njaaloo ci ibadu waaye bu leen njaaloo amul suñu borom ñu wax naan laa taqrabu zina am déet bu leen jege njaaloo ci kon ku ci bëgg mucc da nga a jege loolu it mu lay wan ne xatta yow ndaw loo mën a moytu ci gérer ay keesu xaalis moytu ko jege fitna baaxul bu leen jege garab yi la yàlla waxoon su ngeen ko defee da ngeen doon aji tooñkat waaye seytaan yi mbokk ba ñuy tëj sunu dars bi bi ñuy tëj kaamil bi jàng nañ ñaari saar ñaari saar yoo xam ne qul a'uudu birabbil falaq danga rek qul a'uudu birabbil falaq nga muslu ci ñeenti mbir am déet min sharri maa xalaq min sharri gaasiqin izaa waqab min sharri nafaasaati fil uqad min sharri ilaa ñeenti mbir amma bi ngay muslu ci seytaan yi lan nga def indi nga ñetti melokaanu yàlla qul a'uudu birabbin naas maliki naas ilaahi naas pour lan min sharri l waswaasil xannaas ngir musul ci seytaan nga indi ñetti mbir or que danger extérieur yi mooy li la wër da nga ne raqulul falaq musul ci ñoom loolu muy wone kii gën a nekk noonu doomu aadama mooy seytaan allazi yuwaswisu fi suduri nas mooy yàq sa pas-pas xiirtal la ci lu bon seytaane ñëw ci aadama yàlla netti bi nañu ko saar yu bëri aadama ala adulluka ala shajaratil xuldi wa mulkin la yabla xanaa aadama mënoo ñëw mu wax la garab goo xam ne boo ko lekkee doo dee ba faw te sa nguur gi ay aadama maa nahaakumaa rabbukumaa an tilkumaa shajara illaa an takuuna malakayni wa takuuna min alxaalidin gis nga aadama ah, sunu borom daa xam ne soo lekkee garab bi da ngay mujj nekk malaaka te dootu la mënal dara di wax aadama wa qaasamahuma inni lakuma min nasihin dem ba waatal leen ci yàlla aadama li ma lay wax sa intérêt ci nekk aadama ànd ak awa dañ koo seet bokk <laughs> ñu seet ba mujj ñu dagg ku ne lekk waaw sunu maam yi dañ doon wax ne awa moo lekk aadama avant muy lekk yàlla yebal jibril mu xot ko loolu tax pomme d'Adam mi ngi nii moom i dëkk yi ñu ne loolu tax jigéen ñi di gis régal waaye mbokk loolu du alxuraan du sunna su maanaam daa ne akala minha am déet ñoom ñaar ñëpp a ci lekk fa badat lahuma sawatuhuma gannaaw ba la nga xam ne mu leen yàlla suturaale woon naaw almuhim seytaane mbokk mi ngi noonu heure boo sa xel demee ci bakkaar xamal ni am na noon boo gis mi ngi la cee xëcc su sa xel demee kees gi jël ci su sa xel demee ndaw si ten koo woo su sa xel demee naan ci sàngara bi su sa xel demee def agression lépp nga la waay musul ci seytaan moo lay def was-was si doo ko gis sunu borom nee na noonu la leen génnee ci àjjana joojee ba mu leen ci génnee sunu borom yàlla nag ne leen léegi wàcc leen ngeen nekk ay noonu te it loolu mu ñuy jàngal mbokk danger bi gën a rëy bu doomu aadama ni war a moytu mooy xër aadama xoolal àjjanaa ngi nii lépp yaa moom benn garab dong lañu la tere mais aadama da ngay gis ni seytaane mu jëla ko man ci loolu loolu dañuy gis doomu aadama boo xam ne wallahi lu mu mën a dunde moog doomam ak i sëti sëtam yàlla may na ko ba pare muy dem di jël lu xaram encore suñ demoon tey jii kay xanaa ku dem a dem a dem ba dajale loo xam ne nii yow cent millions deux cent millions yoo xam ne lii moom sécuriser nga ko waa ji kii mën ngaa bañ a bàyyi xaalis bu aram am déet waaye dañuy gis ñu naan dajale nañ bi ñu nee dajale nañ 10 milliards ñii nangam dem nañ ba naan sax 47 milliards 50 milliards lu tax parce que doomu aadama moo xir gis ngeen loolu mbokk ñu góor góor la ci yeneen tibaare sam nee na al ghina ghina nafs yow boo bëggee woomle woomle ci bakkan lay nekk nekkul lu la bëri kër yu bëri ak ay oto yu bëri déedéet mooy da ngay doylu rek yàlla may la ak doylu suñu borom nag mu ne ay ca wàcc leen ci kaw suuf ngeen nekk fa ay noon ca mooy njabootu cheytaan ak njabootu adama ñu nekk ay noon inna cheytaana lakum aduwun fattaxisuhu aduwa suñu borom mu ne noonu la jël leen ko noon waaye alhamdulillah suñu bay aadama ba mu defee erreur ba iblis def ndax kat iblis yàlla dana ko sujutal mu ban aadama yàlla na ko bu laal garab gi mu laal ko waaye alhamdulillah suñu bay aadama moom daa dellu ci yàlla yàlla xamal ko nu ñuy tuube soo demee ci gàmmkat ye ca loolu am na ay téere yu mu ñu ne dafa ñëw ci yàlla na ko yàlla baal ma bi jaahi muhammad suñu borom na ko foo xamee muhammad mu ne ko àjjana yëpp damaa gis ñi bind ci laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ma xam ne sa tur doo ko lënkaleeg lu dul koo fonk yone sunu borom yàlla na ko demal bu dul woon ak muhammad du ma la bind ñu ne loolu tax yàlla baal ko wallahi mbokk loolu ñëw na ci ay téere mais de xam nga lu wér la yàlla wax ca téeram ba qaala rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin lii la leen yàlla xamal ñu wax ko ay yàlla maag sama soxna si day nañu suñu bopp su dee ne jéggaloo ñu tooñ ci taxfir lana warhamna yërëm ñi bañ bañ a dellu ci tooñ ci kon day daañ bokk ca gaa yi perte gis ngeen lii bañ ko waxee ca sunu borom yàlla ci mbaaxam daal di leen di baal la nga xam ne nii moom mooy ah, seen bakkaar ya lu tax mooy sunu borom innahu huwa tawaabu rahim bakkaar lu mu rëy rëy rëy rëy bis boo ko tuubee yàlla baal la yërëm la yal na yàlla may ñu tëb gu sell te yàlla subhanahu wa taala yërëm ñu yal na ñu yàlla boole gi mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci saloo xam sa diini ca Aboubacar Sarr nekk suñu diggante ak ñoom ñi nga xam ne ñooy waa dégg diine it euh, point net da gis ne tafsir bi bañ ko ci dars yi passé ci baqara bi yëpp mi ngi seen site bi ku ko bëgg a seetaan en vidéo da nga ko fa seetaan euh, même tafsir euh, àjjuma ci suba it tafsir bi incha allah dañ ko teg ñaar yooyu nga xam ne ay ndaw lañu ñu jël seen alal def ko ngir tasaare. la nga xam ne jàpp nañ ne alquran la ak sunna yal na yàlla subhanahu wa taala teg ci loxoom yal na yàlla barkeel leen ci nangul leen ak ña nga xam ne ñoo koy déglu mboole seen wa nabina muhammad ndax euh, au tribunal euh, bu ñuy juge bi génne ñëpp dañuy jóg taxaw loolu mbokk ñu xam ni loi la bu jógewul ci islam am naa ne islam le juge des juges mooy suñu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye daawu ñu mukk saxaaba yi jóg di taxaw ni nekkul islam am naa nag yow nga xam ne da soo demoon tey juge bi ñëw boo dugul dabaw mën nañ daal fitnaal su ko defee rek nga koy def mooy daw la loolu moo tax nga koy def daan koy wax ci même sunu xale yi yéegi nañ sunu xale yi bari ci yàq seenu njàng parce que nee nañu du ñu taxawal bi mbokk loolu ak lor la yaa ngi jàng ba yegg ni ba terminal ni ba seconde professeur bi ñëw yow loolu règle ñëpp indi njàng moom ñëpp indi jógal ko su ko defee yow jógal taxaw fekk sa xol mi ngi bañ loolu yëg nga màggaloo professeur bi mais loolu moo tax ngay jóg ba suuri sam njàng moo gën ñu dàq la nga ñàkk sam njàng loolu daal ñu xam ne kenn du ko fi bànneexu bakkan jullit bu koy def da koy def ngir xol bu ah, naqari la amu ci pexe moo tax mu koy def wallahu naam bismillah waxaatal ma dégg. waaw ndax euh, koo xam ne yàlla dafa dogal benn soxna ngeen am doom ndax ku mel noonu mën nga koo takk naam mën nga koo takk loolu yi dara nekku ci lu dul ne doom boobu ngeen jëkk am da bokk ak doom yi doom ba ngeen jëkk am kooku bu dee ci wàllu ndono moom du loo donn amma doom yu mujj moom dañuy doom yoo xam ne ñoom doom yëpp ñoo yem mi ngi leen wallahu subhanahu wa taala alam ah, waaw bismillah dama doon laaj xadisu Omar bi bi Jibril ñëwee ci yonente bi mooy fi ko Jibril waxee ne fax bir ni an amaaraatiha lan la ko yonente bi tontu ala kulli xaal bi sunu yonente alayhi Jibril laaj ko wan ma lan nga xam ci mandarga yi si penc bokk na ca loo xam ne yonente bi alei salatu wasalaam mu ne an talidal rabbataha bokk na ci ngay gis <coughs> ah, jaam jur boroomam loole borom xam-xam yi am nañ ci ay firin ay mooy da ngay gis sang yu bari jaam yi ñu takkoon dañ ci am ay doom doom yooyu nekk ay bóor allahuma am na sax ñu koy firi mooy ñu deme dem ba jamono ngi ñëw doom yi ñooy nekk kilifa yaay yi ndax yaay dañ ko waroon a topp respecté ko waaye dañu dem ba doom yi dootuñu yaay yi nekk seen kilifa loolu daal mooy wéru jamono la am na ñaareel bu ma ko wax mooy nga gis sàmm yi nga xam ne dañu nekkoon ci àll bi amuñu woon sax daal loolu ñu sol ñuy dëkkante ku gën a guddi immeuble te loolu ñu ngi koy dund suñu jamono yi tey tey jii boo doon recensé immeuble yi nekk Dakar wallahi la ci ëpp ñàkk moom ci ay safet bi ñu juddoo am daal bi lañ juddoo tey loolu am na xam loolu yeneen ci bari salaam waxoon na ko ne àdduna dana wëlbati ko ba ñañ gënoon a suufee ñu nekkoon ca àll ya amuñu dara ñooy wëlbati ko yow alalu àdduna daan demit ba nga xam ne nii jigéen dana jur boorom loolu daal ci mandarga ya ko yi Jibril alayhi salaam waxoon donte ne am na yeneen mandarga yu bari bari bari yoo xam ne yeneen di wax na ko ci ashratu saa wallahu subhanahu dama euh, la doon laaj euh, benn xam nga dafa am benn waay mais mu ngi yor benn saaru kaabul bi mais bopp bi dafa am fii daal mu def ger mu am benn waay bu ko gis euh, kooku moom tam jàngale na ci wàllu diine mais def ko ne lii nga yor nii ku ne xam na sa yéene mooy rey nit te ba fekkente ne garde moo la boole ak lii yonent bi saa salaam dem moo kon ñaari jullit ñu jàkkaarloo xeex kenn ki rey kenn ki ñoom ñaar si fa lañ ko ne yow da ngay atte sa bopp côté boobu mais par rapport ak garde bi ndax. waaw kuy de xamal daf ko gis mi ngi garde mi ngi nag mënoo ko yow sa misaal yow da ngaa lii da ngay ñett yonent bi saa nee na ñaari jullit buñ daje ki rey ak ki ñu rey safara la jëm xaalis bi jëmul foofu waa ji xam ne day garde. dafay am ñu ñëw mën ko attaqué ñaata gardien lañu ñu rey ci. bëri na bëri na. gardien bi mu yor arme lay jubluwaayam du dajal mbokk jullitam rey ko mais lay jubluwaayam mooy li muy garder mu mën koo défendre défendre bakkanam loolee kon mën na nekk jaasi. mën na nekk yar même gardien bu yoroon fekkal sax kenn du ko wax ne li ngay def danger ndax ñii attaqué am na ñoo xam ne fekkal la ñu yor kon bu ñu ñëwee tiire la nga jël sa fetal tiire leen ñoom ku ci koo ci rey da ngay gis na daa perte yonent bi alayhi salaam na ko waaw bu ñu ñëwee sama kër ba nga nag a ko a waaw ba xeex ak man nag mën a ko xeex ak moom ma a ko la su ma ko reyee nag a ko soo ko reyee mu dem sawar kon it lislaam du rek ne da ngay bañ tey mooy dañoo am problème ca politique ba am problème ca tool ya am problème ci sport nga mer ma mer ci ñaari jullit lañu man a xaaral ma jël bakkanam benn yoon mooy mun a xaaral mu jël bakkanam benn yoon kee jëli yat kii jëli yat wala fetal wala fetal bu ñu dajee loolee ku rey sa borom sa wala nga am naa boo toogee fa nga toog benn waay jóge fële bëgg ñu jël sa bakkan nga def self défense ba baa delloo ko mu fàcce de kooku mooy ka perte wallahu subhanahu wa taala ala ah bismillah noonu. waaw loolu nga xamante ne dafa ubbi compte ci banque bi. bu dem ba jamono mu bëgg a tëj compte bi waaye ñu ne ko euh, sooy tëj compte bi il faut que euh, ñu xaalis nga ko fi bàyyi maanaam pour fermeture de compte bi maanaam loolu noonu le fait que jury bi ci loolu baa du ci mbirum corruption ak yu xaal la jëkk a wax mooy jullit du yóbbu xaalis banque lor rek moo tax mu ko fa yóbbu mooy loru na ci ne ragal ne munu ko dencal boppam wala munu ko dénkuloo keneen. wala it léeg-léeg am na yoo xam ne mënoo ci am pexe booy voyage il faut ñu laaj le compte bancaire ak yu demee noonu loolu nag ay règle la yoo xam ne soo demee ba def loolu la ngay bàyyi ca banque ba loolu moom islam du la ci toppee ci dara ni ngi loolu la borom xam-xam yoo koy mooy la la banque bay jox ci xaalis d'abord nga koo jël mënoo ko jël mais yow bu dee yaa jël di leen seet sa xaalis ñu ne la xaalis bi kat pour ñu dencal la ko nangam la ñuy fay loolu moom a allah dara nekku ci fi naam bismillah kulli xaal ndax jullit ñaag yéefir yi daan daje ci barzaq la gën a not ci waaye yi borom xam-xam yi wax mooy luñ fa gisee boo delloo ci téere boobu di Ruuh Ibnul Qayyim dana fa wax lu bari nee ay xadis yi ñu jëlee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam faatoo dem barzaq ñi nga xamoon dañ koy gàttandu buñ ko gàttandoo ñun nañ ko bàyyi mu noppalu ba nga jóge ci kër coono ga ndax boo dee yaa ngi ngërëmul yàlla yaa ngi ñëw ci këru noppaloo ba yàlla yàlla boole bi ci amaa yéen fii nag seen armée li ci bind ba éternel waaye ak nga xam ñu dee yaa ngëm yàlla de mi ngi noonu bu ko defee nee na bu ñëwee dañ ko laaj ana diw mu ne ma nga fay baax rek mu nga fay bëgg a jàkk rek mu nga fay nangam rek léegi nag ñu laaj na ko ana diw mu ne ah gis nañ ko ñu ne déedéet mu ne ko def mu ne ko dinaa di jël nag moom mu ñu ko dee de yaa ngi dégg loolu kon muy wane ni ah yii fii ci barzaq yàlla dina ñu dugal mu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam euh, mu ne ci wa ñaareelu question bi. jaay dërëb waaw waa ji jaay dërëb dama daan jaay dërëb léegi nag tuub naa ci la ma daan jaay na naqaar ndax yàlla dana ma baalam du ma baal ala kulli xaal bu tuub bu seetlee yàlla baal na sunu borom mu ne képp afaallaahu amma salaf la nga ne passé na yàlla baal na la fexeel ba bu dara jaral fi nga jaay torop maa daaw xaalis boobu ci torop la jógee ba loo man ci lu baax nga def ko ci loo ci lu baax nga def ko ci xaalis bu ñu sàkkee da maa dama yaa koy liggéey ci liggéey bu xaraam la nga ca man rek mooy ah inna alxasanaat yuzhibna sayyi'aat place bu bon nga ko jëlee delloo ko ci jàkka delloo ko ci masaakin delloo ko ci place yu baax yi incha allah yàlla mën naa la baal ci loolu waa ji mu ne koo xam ne loo ko bëgg a dugg mu maye ko am nit. utiliser loolu anam li xaal bokk na la gën mooy looy maye fekk da nga koo bëgg waaye nag doomu aadama léeg-léeg nga dem ba am loo xam ne yow soxlaatoo ko waaye wóor na la ma moo la doonte ne nag may ba gën ci may mooy la nga xam ne bëgg nga ko soxla ko waaye tey nitum Ndakaaru a na mën na am yére boo xam ne moom rus na koo génnee waaye boo ko joxoon waa di dëkk Fuuta wala Jolof moom mën a ci toilette yooyu na yooyu moom islam bañu ko mi ngi noonu mbokk wallahu subhanahu wa taala xam naa daal wax ngeen baal ma dem mujj ci bokk bi comme daa xaw a sori te ndax dafa guddi bismillah waaw chaque waaw loolu wax naa ko sànq bi xaalis te banque ma dugal naa ko un million léegi ma ñëw fin d'année ñu ne ma am nga fi un million vingt cinq mille ndax am naa am na borom xam-xam yu ne waaw waaye vingt cinq bi nga xam ne moomoo boole ci zakat doo boole say soxla da nga koy jël xool jaamu yàlla bu aajowoo jox ko ko parce que comme alal joo xam ne da nga koo faroon fii rek jox ko miskin am na ñoo xam ne dañ ne déedéet euh, un million nga defoon jëlal sa un la ca des riba la bàyyi ko foofee loolee ñaari position la ci borom xam-xam yi boo ci def rek te yàlla tax nga koy def incha allah yàlla subhanahu wa taala dana la ko nangul